su ma ko waxee ku ne xam ne ne euh, grève de la faim ku ne xam ne ne xiifal euh, métti na boobu nga xam ne euh, kenn mënul comprendre ñu gis ne li ni mel ñoom jigéen ñoo ñooñu ñu ngi koy dund rien que rek pour maanaam pour contester jàpp bi nga xam ne jàpp nañu kon cela veut dire que aussi tamit ay Linguère ñoo nekk foofu noonu ca camp pénal. waaw ñoom dañuy continuer seen seen seen seen comment seen combat à leur manière parce que du jàpp gi ñu leen jàpp dong moo taxoon ñu doon grève de la faim. Mm-hmm. waaye les conditions de détention tamit taxoon na ñuy grève de la faim parce que mm. ñëpp xam nañ lu kaso méttee ñëpp xam nañ ni kaso lekk gi demeewu fa noonu ñëpp xam nañ ni seen chambre yi c'est pas optimal mm-hmm. ñëpp xam nañ conditions sanitaires yi ñu nekkee yooyu noonu yëpp bokkoon na ci lu tax ñuy grève de la faim mais tamit bokkoon na ci taxu ci lu taxoon ñuy grève de la faim mooy depuis bañ fa demee ba léegi nanguwuñ leen woon jox règlement intérieur kaso gi te règlement intérieur bi mooy mën a tax nga xam lan lañ fa tere ak lan lañ fa terewul ndax su dee xamoo luñ fa tere ak luñ fa terewul mhm. nga def fa njombe day yomb te su boobaa nit ñi dinañ ne def nga fa njombe waaye en âme conscience xam nga ni defoo waaye da nga xamutoon loolu dañ koy tere donc loolu yëpp bokkoon na ci lu tax ñu doon grève de la faim mhm. ay jàmbaar lañu ay lingeer lañu ñoom à leur ñu ngi maintenir en tout cas seen combat mais j'espère que wala jàpp njortu nga ni kat dinañu obtenir la nga xam ne moom la ñuy parce que grève de la faim a après négociation amoon na ci parce que soo seetloo arrêté toog di ndax dinañ matale la nga xam ne digg nañ ko mais en tout cas jot nañu am ay négociations jot nañu waxtaan ba tënku ci kàddu. voilà jot nañu waxtaan ba daal di euh, tënku ci euh, kàddu mu nekkoon jigéen ñi nga xam ñoo ne foofu noonu ca camp pénal doon def li nga xam moom mooy euh, grève la faim ba tax na ba léegi bu ñu foofu dañuy daal di ñëw ci décès wu ki nga xam ni moom mooy Papito Kara parce que mu nekk tamit nit koo xam ni ab activiste et aussi nit koo xam ne tamit lépp loo xam ne Sénégal soxla na dafay daal taxaw temm rek ngir daal di. Euh, jàppale loolu la nan nga yëgee li nga xam ne moom mooy euh, décès am ah, mhm. comme ni ko ñëpp yëgee rek ndax veille bi nit ñaa ngi doon sikki sàkk ndax dem naam demut mhm. mais man sama problème nekkutoon ndax des na ci géej gi wala desul ci géej gi mhm. man sama problème dafa nekkoon lan la lan lay defi ci gaal yi parce papito dañ doon déggante sama nit la sama nit la. Mhm. te wonewul benn yoon découragement au contraire bokkoon na ci ñi nga xam ne ñoo doon yokk jom ni ñi yokk leen courage. Mhm. donc gisuma woon raison bu tax mu war a mën a dem waaye ñëpp xam nañ ni contexte bi mhm. <laughs> ku ñu tëjut kaso. gàddaay nga daw wala dem nga uti ji ndax dafa metti donc euh, résigné wu nañu ci loolu mais naqar la tiis la am nañ ci métit bu baax a baax a baax le lendemain la ñuy doog am confirmation ni dem na. di ko jaale waa këram di ko jaale soxna jaara ndeysaan mhm. soxnaam si borom baax dëgg ñu ngi xamante woon ci jamono jiñ ko tëjee kaso mhm. et ñu doon dem seen kër di leen masawu et tout di jaale Matar feeram di jaale Daouda di jaale waa kër gi yëpp en tout cas naqar lañ ci am ak tiis te suba incha allah dinañ dem ba Touba ndax suba la dëj bi mhm. dinañ dem ba Touba fekkee ji dëj bi fekkee ji ñaan gi pour euh, accompagner ko bon mënuñu ne accompagner ko à sa dernière demeure parce que voilà ñëpp xam nañu contexte bi mu demee. mais en tout cas journée la boo xam ne dinañ ko ci ñaanal bu baax a baax. Mm-hmm. en tout di ci jaale le peuple sénégalais di ko jaale SNP. parce que koy faral di wax nee na moom SNP la bokk mooy mouvement bi nga xam ne moom laa jiite. Mm-hmm. SNP laa bokk parce que Sénégal notre priorité. tënk na lépp tout le temps mm-hmm. noonu la ko doon waxee. ñu nit la woon di ko jaale waa Kolideb bu baax a baax parce que ba ci distribution ndogu bi ñu mujj organiser. mi ñu woon ci terrain bi doon séddale ndogu bi ci. voilà ci VDN bi. ñibbee. Mhm. naqar lañ ci am ak tiis. dëgg la naqar ak lañ ci euh, daal di am mais tamit immigration clandestine bi ndax ku ne xam ne ne euh, moom Papito Kara en prison nañ ko fi lu toll ci 6 euh, mois bañ paree nag ak jafe-jafe yi nga xam ne dund ko d'après ñi nga xam d'après témoignages yi nga xam ne am nañ ko ci famille jafe-jafe yooyu nga xam ne dundoon na ko moo ko poussé à ce que mu dal di dem ca gaal ya ngir ral ngir wuti ji un lendemain Euh, xam nga tey quoi qu'on puisse dire mhm. foog ñuy situer les responsabilités Okay. parce que immigration clandestine commencé wul ci moom te du arrêté ci ñu ci ci moom. sa mhm. qui est malheureux mooy moom dem na. métti na. Mhm. mais suba soo xëyaatee di nga gis ñeneen ñuy dem parce que dañoo désespéré. état bi dafa hypothéqué suñu suñu avenir mooy tey sénégalais bi ñun dañu maanaam suñu suñu droit suñu ay droit dañ koo bafoué man waxuma la sax. saax-saaxe gi ñuy saax-saaxe suñu ressource mhm. waxuma sax caxat-caxatee gi ñuy caxat-caxatee suñu alal mhm. poste yi nga xam ne waroon nañ ko am ñu jox ko ñoom seeni mboq bëri na mhm. loo xam ne motiver la loolu waaye hormis loolu xanaa nag euh, comme niñ koy faral di waxee yelwaankat soo ko munta yërëm bàyyi kook li mu yor li mu yor waaye ñoom même li ñu yor mu nekkoon cadre boo xam ne am nga lu la metti am nga droit wax li la metti sax dañ ñu faa tënk mooy maa lay dóor maa lay xoqatal maa ngi lay gaañ maa lay rey waaye amoo droit wax mhm. mooy soo waxee ma jàpp la tëj te jàpp tëj googu mooy li gën a simple mooy li gën a yomb ci li la ci mën a fekk mhm. parce que dañoo nekk face à un gouvernement boo xam ne lu ñu sañul amul te ñun xam nañ ci dara da ngay gis tey ñi nekk kaso suñ la waxee condition yi ñu nekkee mm. condition yi ñu fa du duggee ak condition yi ñu nekkee dafa métti mooy tey am na ci ñoo xam ne wallaahi gis nga libération des détenus politiques bés buñ ko amee mm-hmm. yuuxu dina jib fuñ ko foogeewul am na ci ñoo xam ne li ñuy dund dafa jéggi dayoo am na ci ñoo xam ne du lépp ngay mën a wax ci espace public bi waaye ki génn dina mën a nettalil boppam moom li mu dund wala li mu gis mm. am na ci ñoo xam ne ni ñu duggee woon du ñu génnewaatee noonu parce que bëri na ci seeni cër yoo xam ne yàq nañ ko am na ci ñoo xam ne tey <laughs> seen bakkan rot na ci te seeni mbokk xamuñu ko bëri na lu xew ci dëkk bi te ba léegi kenn waxagu ko yow nga jàpp nit ki jàpp tëj mhm. ay mbokkam gisatuñ ko nga teg leen loolu ak loolu ci naqar yokku denrée de première nécessité yi fii kenn mënatul lekk ba suur kenn naanatul ba màndi mhm. jël courant bi yokku ko yow mi nga xam ne yow yaa ngi liggéeyee Sénélec la ngay fay bayiwut su dee di nga fay la population le le sénégalais lambda mi ngi fay lu ëpp téeméeri junni yoon li muy fayeeku par fin du mois di nga gis koo xam ne cent mille mooy salaire am su fayee ko facture courant am àgg ci deux cent mille nga xoqatal askan woowu askan wi nag jug ku mel ni Papito Kara xale bu ndaw la waaye dafa takk soxna su ko neexoon nekk ci lu ko neex waaye dafa xam ne loolu diine mayu ko ko mm. mu takk soxna war koo yor nga tëjal ko buntu yépp fu mu fëgg mu jafe fu mu fëgg mu jafe te su fekkoon dafa liggéey lu tax mu war a mën a jafe ñu ne waaw waaye kooku kat xamul lenn lu dul daan doone ci cadre liggéeyam nga ko jàppee tëj ko kaso mu génn di il se cherchait mais il n'arrivait pas à se retrouver parce que amatuloon liggéey bu stable mm. loolu yépp mu koy dund kooku yaa ko poussé ci géej gi kooku tey su gàddaayee yow yaa ko gàddaay loo mm. sans compter que képp koo xam ne yaa ngi wax lu neexul Macky ñu ngi lay persécuter képp koo xam ne yaa ngi wax lu neexul nguur gi à tout moment mën nañ la jàppaat tëj dafa doon jéem a rawale bakkanam moo tax mu dem kon l'État est responsable de tout ce qui se passe actuellement mooy soit les Sénégalais xale yi suñ leen jàppul tëj mm-hmm. ñu ngi gàddaay wala ñu ngi dem exilé wu ji te muy lu ñaaw kon état bi dina xoolaat doxalinam gouvernement dina xoolaat doxalinam. l'état a échoué. loolu ose osons le dire il a échoué lamentablement mais nag du tee. man jigéen mooy li ma wax sànq. suñ ma doon rey suñ ma doon xoqatal suñ ma doon tëj du fii laay toog xeex ndax ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci nguur gi di buum di buum mi ëpp ñu ma wàll ci réew mi. dëgg la ëpp ñu ma wàll ci réew mi sama maam samay maamaati maam fii la ñu juddoo. ëpp ñu ma wàll ci réew mi kon du ma leen xajal fii laay toog ñu ñàkkante ko heure vote jot ma dem vote ji loolooy ngóor loolooy jàmbaar na ñëpp laxasaayu waa toog mm. dafa am combat boo xam ne dañ ko war a gagné muy jigéen muy góor bu ñu désespéré métti na dëgg na ci ñun ñëpp la méttee. bu mhm. leen jàpp ni amaana ñi nekk de devant de la scène wala ñi ñuy gis seeni condition neex na wallaahi kuy dund métti ku nekk ñun itam ñu ngi koy dund. waaye dañoo ñeme wute yuuxu. Mhm. waaye nag nañu toog ñàkkante ko parce que ëpp ñu wàll ci réew mi Macky Sall ëppale wuñu ci réew mi Macky Sall moomul réew mi donn ko. ñun ñoo ko ëppale ci réew mi. ëppale wuñu benn yoon ci réew mi parce que benn ñaar gu ne moo ëpp benn comme ñun ñoo ko ëppale ci réew mi bu kenn dem nañu toog ñàkkante ko jusqu'à ce ñu am gain de cause voilà nañu toog euh, ñàkkante ko euh, jusqu'à euh, ñu daal di am li nga xam ni moom la ñu daal di bëgg mais li nga xam ne gis nañ ko mu nekk fléau boo xam ni gis nañ ni suñu ay dirigeants dañ ci daal di noppi comme si wala on dirait que ni xale yi li ñuy dem gisuñu ko wala dafa nekk lu leen gënal wala on ne sait pas parce que dañ cee woo dañ maanaam noppi gi nga xam ne ak addu gi nga xam war nañ ko addu malheureusement gis ñu da leen a gënal da leen a gënal ndax tey ku tëdd sa biir néeg mhm. ñu lay indil ndékki añ reer sa papa saa yu ñëwee gaaral la oto oto boo bëgg gàddu dem xam nga ni kooku doo dem jëli risque naan yaa ngi dugg ci gaal gi ñëpp xam nañ ñan ñoo nekk ci gaal gi ñi nekk ci gaal gi mooy ñi désespéré mhm. mooy ñi nga xam ne ñu ngi chercher un lendemain meilleur ñi dem ci gaal gi mooy ñi nga xam ne dañ leen a persécuté ba ñemeetuñu toog seen réew te ñëpp xam nañu ñoo ñu fan la ñu bokk ñooñu bokkuñu ci population bi war a voter Macky sàll ñi dem nii yëpp ci gaal gi bokkuñu ci ñu war a voter Macky Sall bëgg wàññi électorat moo tax ñu jàpp tëj bëgg wàññi électorat moo tax ñuy bàyyi nit ñi di gàddaay di dem mm. parce que plus nit dem plus mu leen di arrangé parce que ñëpp gis nañ ni inscrire nañu ci liste électorale yi mais benn Yolande tey su demee dootul voté ti kon am na lu wàññeeku ci électoral par exemple benn Papito Kara mu dem ñëpp wàññeeku na ñuy dem ñëpp amatuñu espoir mais ñi ñàkk espoir tamit ñëpp xam nañ fu ñu faree donc loolu da leen arrangé loolu da leen arrangé tamit parce que xam nañ ni ñi nga xam ne amuñu liggéey et que ñu ngi dem suñ fi desoon confrontation su amaatee day doonaat liy gën a dooleel peuple bi kon lii da na a moo tax duñ ci gaaw a waaye suñu bëggoon tey émigration bi dakk mhm. suñ ko bëggoon tey tey tey dina dakk waaye da na noppal da na a arrangé ok na leen a noppal da leen a arrangé mais ñu gis ne euh, ñenn ci suñu ay euh, homme politique wala ñenn ci suñu ay acteur euh, politique daal di ci addu ki ci mel ni Mimi Touré daal dinay addu jëm ci loolu leen ndax ma ngay masaw waaye tamit di ñaawul bu baax baax a baax euh, génn àddina bi nga xam ne Papito Kara génn na ko waaye tamit jaar ci ndox mi kon mu nekk loo xam ne moom la ñuy xaar euh, ci suñu ay acteurs politiques ñu daal di àddu euh, su jëyee daal di dalee ci kaw askan. xam nga ñun tamit nous ne sommes pas amnésiques. Mhm. di ko ziar nag bu baax tata Mimi. sama sama tante la. Mhm. bokk nañu ay panel. surtout F24. ma respecté ko bu baax. parce mhm. que dafa jëf wala daf ma woon lu tax ma respecté ko. waaye nous ne pas amnésiques. mooy Papito Kara bi ñu koy jàpp moom mi ngi woon ci nguur gi mhm. mi ngi woon ci nguur gi te su ko ñaawlu kon du tey lay ñëw di ñaawlu jàpp gi ñu ko jàpp woon ak fi mu jaar ba tax mu jël gaal gi dëgg la nag mënuñu juger si li mu wax c'est de bonne foi ou pas parce que nekkuñu fi pour juger mm. mais foog ñu koy fàttali ni ba muy métti dëgg bañ koy jàpp ba nit ñi di wër pour ñu libérer ko mi ngi woon ci nguur gi pendant sa temps lan la defoon pour sa libération pendant sa temps est-ce que taxawoon na wax ni xale bii ci liñ ko jàppee du ñoon kii dañ ko war a encadrer mais pas ko mhm. biñ fiy jàpp ku mel ni Ousmane Diagne mhm. parce que dafa reetaan lan la ci waxoon bi ñuy jàpp professeur Cheikh Omar lan la ci waxoon bi ñuy jàpp Hannibal lan la ci waxoon parce que ñi ñuy jàpp ñi ci ëpp boobu bi ñuy woon ci nguur gi mhm. kon nag nous ne sommes pas amnésiques dëgg la nag rafetlu nañu ñaawlu gin ko ñaawlu parce que leader politique la mm. mais de là à dugg ci jàppoon nañ ko na ne moom bokkoon na ci ñu ko jàpp parce que mi ngi woon ci nguur gi nous ne sommes pas amnésiques j'ai énormément de respect pour elle mais vraiment fàttewuñu li xew mm. non te ñëpp dañoo war a payer de leurs actes c'est pas parce que da nga dem ba repentir wëlbati ko ànd ak ñun que voilà dañuy fàttali nga defoon ñëpp nañu nañu payer de leurs actes parce que justement bañ koy def kenn forcé te kenn sexalu leen lem mm-hmm. voilà merci beaucoup ba léegi rek euh, ñu daal continuer waxtaan bi waaye yéen a ngi en direct jamono ji sur 313 euh, digital ngeen continuer li nga xam ne moom mooy euh, liker live bi partager ko surtout aussi mën ngeen dem ci commentaire yi ngeen daal fa joxe li nga xam